man mënu ma génn ba pare bëgg a taxaw ne mën naa génn samay ministre toog leen ci biir en 2012 bi mu dëggee ak ñoom Omar Gueye ak ñoom Pape Diouf. Mhm. ñoom ba ñu génnee ci gouvernement bi ñoom Pape Diouf ne dañ fay des lu mu def dañu ndax n'est-ce pas bii mu ne day proposer Aliou Salé dina wax président ne ko toogal cetera donc moom il n'était plus contre ce principe là. on va répondre. rek. non à ba mu ba mu pare dama ne. lam doon Sare Idi. franchement xam nga bëggaan li muy wax sa problème moral la gis nga Idrissa Seck n'a pas de problème avec les Sénégalais Idrissa Seck il a des problèmes avec sa propre personne idi hmm, boppam la amal problème mais Sénégalais yi hmm. sóoratuñu ko ci dara xam nga dama am benn xarit mu doon wax naan Thiès moom dañu ay en matière de théâtre soleil levant ma nga fa mais idi moom mooy rek soleil couchant <laughs> c'est vrai c'est le soleil actuellement de la politique sénégalaise hmm. xam nga boo gisee PEND léegi bi muy développé il a eu beaucoup de problèmes. Ah, pour wax ci problème non c'est-à-dire beaucoup pour wax ci affaire Idrissa Seck ah. parce que yow da ngay wax ay ñoom Khalifa ñoom Bougane et cetera mais c'est-à-dire le phénomène Idi ci boppam cest à yéen seen génn bi c'est-à-dire ci loolu nga waroon prononcé wu. et puis li ma doon wax léegi ma ne la yéen ni ngeen di wax naan Idi buy dem day waxtaan Idi suy dugg ci gouvernement yéen du leen tàggu du leen waxtaan du leen ah waxtaan kenn ah la preuve si dafa nang rek man je vais te rafraîchir bi muy dugg ci gouvernement bii. Mm-hmm. Yankoba Seydi a vingt quatre heures fii. Sen mm-hmm. TV interrogé nañ ko ci mu ne loolu mënul am. Mm-hmm. parce que waxtaanee wuñ koy dans nos instances bi affaire bi amee dañ la koy Yankoba waxoon nañ la ko. man ba ma ko bindee waa réew mi saaga nañ ma ci ay poste parce que seulement dañ ne lu idi bañal ab lay Wade du ko may Macky Sall mais ba muy dugg tàggul kenn. et puis xam nga moom dane ay problème ay tension et cetera di taxoon mu dugg waaw mais moo tax mu génn réew mi dafa am lu fi changé ba mu génn mhm. la ko la la ko fa dugaloon mhm. est-ce que ça a empêché que mu qu'il y ait eu les événements de mars 2021 ça a empêché qu'il y ait récemment de des encore ay émeutes ba mu am ay ay morts mhm. léegi moom nee na dafay dafay génn non c'est-à-dire aussi moi je crois que il faut que Idrissa Seck apprenne à respecter aussi les Sénégalais xam nga lu tax parce mënoo di politique def nii def nii def nii ce jeu de yooyu laa dem et cetera finalement il a perdu toute sa crédibilité et puis ah lan moo oui bien sûr xam nga quand aujourd'hui il dit revendique de l'opposition vraiment le chef de l'opposition xam nga ne kon c'est fini pour lui bu dee loolu rek moo ko desee cette tos à ronger la li bëggaan wax na ko jël mais ku mënul gagner sa bureau de vote bala ngay revendiquer chef de l'opposition revendiquer d' abord sa bureau de vote nga gagné ko ba pare. Ah mais mënatu ko moo tax man la Pape bi ngay wax léegi ne ma sama jauge déjà Thiès rek mooy sama jauge Thiès mooy sama jauge Idrissa Seck mënatul gagné Thiès que Thiès sa base électorale nañu waxante dëgg. Thiès Thiès non damay wax dama ne dama ne Thiès c'est sa base électorale. de tout temps de tout temps xam nga ne Thiès idi même su dawul campagne razzia la fa daan def depuis. en bout de temps idée waxuma la non seulement gagné Thiès mais dama ne la bureau de vote mënatu koo gagné léegi. léegi nag kooku su fekkee ne dafay génn ay chef de l'opposition na jël ak ay milliards am mais li wartoon ne mooy les Sénégal lui ont tourné le dos moom nee na Sénégal ils ne sont pas dignes de confiance. Mm-hmm. waaw mais moom est-ce que seetaat na boppam. moom mi nga xamante ne heure bu ko neexee mu ne day dugg day génn va et dem dikk. kooku moo am problème ak boppam mais Sénégalais yi dépassé nañ Idrissa Seck fi ñu toll ñu ngi ci leneen ah je crois que waa réew mi ci seen wàllu bopp il non c'est que en en en réalité c'est que réew mi ci boppam moom la Idrissa Seck yàq ah depuis nag 2007 et puis xam nga lii lu bees ci Idrissa Seck il est coutumier des faits en vous faites des jugements de valeur waaw d'accord mais moom moom pare Penda j'en j'en ai le droit 2007 au moment où tous les gens yaakaaroon ci moom en plein jour il di casser dynamique boobu quand il est allé rejoindre Wade au palais foofu mooy déception bi Sénégal njëkk am ci moom il parlait de 2012 mu ne demul campagne 2020 2019 bi dem na campagne mais Abba yéen bu ngeen gisee Idi ni mu campagne en 2019 mais moom dès le départ sax il a dit nee na moom dans sa campagne du du du wax dara lu ko lu naxari Macky Sall il avait dit quasiment c'est-à-dire que dans une dans une campagne yow ngay déclarer loolu alors connaissant la verve de Idi parce que Idi depuis 88 man maa ngi koy suivre je connais bien l'homme ah. la campagne ah. il a fait une demi-journée à Dakar pour le dire donc ça veut campagne n'a pas été sérieuse c'est une ah et le problème qui se pose c'est que ah. Idy a dupé les Sénégalais parce que moom ci boppam xam nga booy wax da ngay dem ba di jaay trahir sa bopp hmm. quand il a dit pendant quinze mois je suis en train ah, négocier les gens ont calculé donc ñu ne kon kii ça remonte à l'avant euh, comment dirais-je 2019 ça dire que moom il a trahi la confiance des Sénégalais kooku nag tey bu bëggee taxaw les Sénégalais ne sont pas confiance est-ce que ce n'est pas lui qui n'est pas digne de confiance et man jàpp naa ne c'est lui qui n'est pas digne de confiance parce que quand tu es digne de confiance am na benn éthique boo xam ne ni tant soit peu war nga ko am dans dans le monde politique ñoom ñii nekk ci réew mi dañoo cest dañoo xamul fu ñu mais le problème qui mooy ñoom xam nañu sax ils non plus de leader ils ah n'ont ah non ils n'ont plus de leader xam nañ ko ils plus de leader ñoom xam nañ ne amatuñu leader ka fa nekk fi ñu toll de kenn xamul lan la parce que yow newoo ci biir newoo ci biti tànk nag ñaar ñaara ci mën am banko wala nga taal ko kese mais mënoo nekk ci diggante bi di def nii indi nag ci fi nekk ci posture boobu moom la nekk logique pour logique nee na moom dafa génn ñaaw nekkoon c'est-à-dire ñi nga xamante ne ñëpp mouvance boobu ñu fa dugaloon jox leen ay poste de direction nañ génn ñëpp ci biti ñoom ñëpp ñu dem ñoom <laughs> loolu mooy logique bi nañ génn ñëpp waaw hmm. non non ñu déedéet am na ñu fa des député bi am na ñu fa des. <laughs> xam nga député boobu sax barki dem fi lañ toog naan non inscrite man elle n'est pas non inscrite c'est toujours une députée de Benno Bokk Yaakaar. Ah, moom xanaa un temps de parole boo xam ne moom c'est illimité wala. dama la wax monsieur le ministre. <laughs> ma ne ko moom xanaa dafa am temps de parole illimité wala. dama ne. vous n'avez pas perdu votre allié Idy est toujours avec vous. mais sur quelle base nga teg loolu. aussi euh, mais mais son comportement son discours. mais est-ce que loolu dañ koy tere ci réew. non dama ne non xam nga. dañuy tere ay ay alliés ku ci nekk candidat dafa rek. dafa dafa dañoo nekkul ay nekkatul ay alliés. may may ma dañoo nekkatul ay alliés sax. waaw mais non non terewuñ ko. non xam nga non non mais li muy wax sax dafa nekk problème kon nag kon nag su boobaa. Mhm. da ngay définir ne kon yow tu es allié du président mais tu n'es pas son opposant parce que xam nga gis nga mhm. monsieur le ministre gis nga discours d'opposant dafa am man su ma taxawee ne damay dem campagne comme l'a dit Omar Faye tout à l'heure ça veut dire que donc le projet politique qui est en place doyatuma sama projet moo ma doy sama projet nag su ma ko sampee day fekk yow sa projet politique ma war ko mën a critiquer or mhm. boo déggee Idi mu wax c'est-à-dire que donc le projet politique de Macky c'est un très bon projet. mais il juge qu'il peut mieux faire. waaw non non non c'est-à-dire non non. mais quand tu dis que tu quand mieux faire. tu peux mieux faire donc ça veut dire que donc tey yow soo demoon ci campagne. tu as assez d'arguments pour critiquer ce mieux faire là. oui il a sûrement un programme non il l'a pas. l'a pas un programme à défendre. ne ne lii ma la wax nee na jàpp leen lii ma leen wax fii dama ne jàpp leen lii Idrissa Seck il ne se prend pas au sérieux en plus ah. de ça je te dis tey bu ñu doon dem parrainage il ne franchira pas le cap du parrainage. waaw léegi juste une question. il ne le franchira pas. juste une petite question pour pour nga daanelee foofu sëñ Saliou. Euh, euh, bu fekkee ne que euh, comme li ngay wax. il est toujours il a tellement parti. bu fekkee ni ngay wax il est toujours ci biir seen si gouvernement bi wala ci mu ngi en déggoo réeroowul ak ak Macky Sall. ban intérêt alors. lañ def franchement qu'est-ce qu'il explique ce jeu. ce jeu là qu'est-ce qu'il explique en 30 secondes oui. il est aujourd'hui il fait semblant d'être dans l'opposition pour essayer de déstabiliser ce qui est encore là mais li mu xamul mooy c'est-à-dire que opposition bii ma gis. lan neex da nekk di wax nii. c'est pas genre transfuge la boo xam ne on l'a c'est dafa mel dañ ko yónni pour que mu dem déstabiliser l'opposition. or tey moom ci wàllu boppam. est na ko. non il ne peut pas xam nga tax. Mm-hmm. mënu ko. parce que il n'a plus cette force électorale. d'accord pour pour dëggal pour dëggal li wax gis mooy leader politique bu musta def tour du Sénégal. Ah maa la wax lii. da wax lu la neex. Idrissa Seck. Mhm. c'est le seul leader politique buy laaj réew te musta def tour du Sénégal xam nga lan lay def. waaw précision bi doy xam nga lan lay def. Ah, yónni ay missionnaire noonu sax la ñuy tuddee ay missionnaire gis nga Yankhoba Diattara hmm. lam ko naroon def. keroog euh, ci euh, mbir moomu ba ñoom ñii ñu relever leen ci fonction politique yi ñu amoon c'est parce que Idrissa Seck moom ci boppam il se prend pas au sérieux xam na ni day caaxaan gis nga comédien boobu noonu euh, kii di wax. Mhm. moo moo moo nekk E ba. non c'est le seul ba lu mu wax peut-être pour ñëw xaw tasse un peu euh, l'opposition. Mais de quel Idrissa Seck on parle euh, parce